salaamaaleykum xaaj Abdallah waaleykum salaam Ousmane maa ngi lay nuyu di ziar. maa ngi lay delloo ziar namoon naa la. waaye maa la raw gars ñu la doon laajte rek ci commentaire yi naan ana Ousmane ana Ousmane. waaye dama xam nga tawat bi la woon woon tawat mais léegi sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax waaw grippe bi fan yi dafa xaw a bëri. waaw ah, dëgg la laaloon na ma fi ay temps. waaye dëgg la dëgg mais sinon bala ñuy démarrer damay wax ak suñu gars yi nañuy abonné. Hmm. di ak di partager gën a may doole. chaîne bi. waaw dina ci am solo lol voilà ok mais Hadj Abdallah dama bëggoon ñu démarrer si suñu xarit bi Cheikh Yérim sek <laughs> parce que bi Ousmane Sonko waxee ku fi waxati waxu général bi ak affaire situation Casamance dañ lay tëj moom génn na féete la wax bi féete la wax ji boppam quoi nee na Ousmane Sonko moom lay tëkku mais bon Cheikh Yérim man dama pas personnel moom il est qui quoi il représente quoi dans ce pays. ba ku toll ni premier ministre di ko tëkk quoi te wax ko mën a tëj rek te dara du yëngu ma bëggoon xam nag yow loo si xalaat. xam nga Ousmane. Hmm. yërim dama ko yéram waaw ah. <laughs> jeu <laughs> ko yërëm ndax dafa bëgg dërëm. te du ci am ngërëm. Hmm. foo ko fekk bu gisee jigéen bëgg na xam lu nekk ci biir sërëm. Hmm. bàyyi fa waa këram. jigéen ak dërëm jaral na ko sax jaamu ay xërëm mm. <laughs> kon boobu laa ko jagleel quoi mm. euh, Ousmane Sonko ci campagne bi bi mu demee jigéen Ziguinchor dañoo organiser benn meeting mm-hmm. ci benn terrain bu ñu tuddee Arlem ca quartier bu ñu tuddee Lindiane mm-hmm. léegi nag mu doon wax ci li nga xam ne dafa concerné euh, crise casamançaise bi nga xamante nii ça date de hmm. longtemps hmm. plus de hmm. quarante ans mu nekk loo xam ne góomu xol la ci waa Casamance gis nga Ousmane guerre dafa garaaw Ousmane jël ay arm di dóorante di teg ay mine antipersonnel ci euh, dëkk bi nit ñi di ci jéggi di ko teg ci àll bi nit ñi di dem tool di ci jéggi ñàkk ci seen tànk ñiy dee am ay village yoo xamante dañ ko abandonné ndax rébellion bi ñooñu dund loolu pendant quarante ans ay nit yu tekkiwul dara pour mbir politique ah? ay fal nañ nit ànduma ak ñoom dama leen di xeex nga bëgg jël li nga xamne mom moy mbiru Casamance diko politiquer lolu c'est très dangereux Ousmane Sonko il fallait qu'il tire la sonnette d'alarme ba paré ñoñu il faut que mu avertir leen ñu bëri ñu nane menace menace mais lolu c'est pas une menace réalité là mais lolu bo nekkoon yow domi Casamance yow ngay mm. xam mm. mais fowee crise Casamance bi lu mu garaawee Casamance bëggatuñ sax dégg ay affaire rébellion jàmm lañ bëgg léegi Yérim Seck usmaan Sonko wax ay waxam ba pare ba ne képp ku ci waxati tu vas pourrir à Rebeuss hmm. mais sonk Sonko doomi Casamance la te dafa dund injustice bu métti ci Macky Sall jiñ hmm. nañ ko ne rebelle la jiñ nañ ko ne bu ñu ko joxee réew mi dafay may Casamance indépendance waa léegi koo xam ne bu ñu la joxee réew mi dangay ngay may Casamance indépendance kooku kon lan ngay deme naan da ngay laaj euh, Sénégal hmm, hmm. balaa càkkañ nga dem uti arme nga ñëw dugg ci àll bi nga xeex pour am hmm. euh, sa sa sa léegi yow bu ñu la joxee réew mi nga jox Casamance indépendance ah da ngay delloo réew mi après da ngay delloo Sénégal parti Sénégal bi hmm. lenn rek moo mën a nekk soit da ngay delloo dangay laaj réew mi ñu jox la ko nga jël Sénégal na leen waa jël leen lii yéen a moom lii hmm. léegi ñun Casamance am nañ indépendance man maay président bi hmm. wala nga jël Sénégal ak Casamance yëpp boole ko def ko benn muy benn ñu xam ne Casamance ci Sénégal la bokk xam nga l waxu dof la woon quoi mais terewul diabolisation beeg calomnie yi ah

C'est wax yu ñuy wax du Sénégal mo leen intéressé mais dañoo am hmm. problème ak benn nit bu tudd Ousmane Sonko boo xam hmm. Hmm. dañ koy xeex parce que dafa parce que dafa parce que seen caaxaan yu ñu nekkee moom nekku ci ñuy nekkee moom nekku ci ñëw nguur ñuy jël xaalis di jox moom nekkul ci loolu xam nañu duñ mas am loolu ci Ousmane Sonko léegi nag ñu koy xeex ñoom bi seen xeexu la mais du intérêt général Hmm. léegi yërëm nee na Ousmane Sonko moom lay tekk <laughs> ne ko préparer cellule bi case euh, prison ah, parce que diñ ma tejj ndax man lool man ma ci wax mané ben jigéenu tubab moom mo bind ben livre ne casement dañ ko wara may indépendance lool kenn nangou ko won temps yi Abdoulaye Wade ak temps yi Macky Sall hmm. te livre boobu kenn wara ko dédicacer fini nii Yërim il se prend pour qui ba Ousmane Sonko wara tok am jot ne day gaaruwaale Yërim Seck nee na Ousmane Sonko man lay gaaruwaale def ma single Yërim Seck c'est le cad c'est le c'est le cadet de souci de Ousmane Sonko. suweem la wax mom loolu la bëgg quoi. ba paré il cherche la merde comme français li ñuy wax naan il cherche la merde. mom mm, mm, mm. il est en train de chercher la merde quoi manam euh, ils veulent foutre euh, le bordel dans ce pays. le pays ingouvernable. dañoo bëgg timit rendre le pays ingouvernable. te ñooñu.

ñom duñ ay patriotes. Hmm. gis nga bo nekkee un vrai patriote. Hmm. il faut toujours accepter la volonté. divine populaire après ah, la ah. volonté divine. Hmm. su que si tu es croyant quoi. mais gis nga genre Yérim Seck xam nga lan mooy seen àdduna. xaalis rek lañ gëm ak prestige bëgg aduna te boo ko xoolee instant bi dafa nekk ci choono bu méttee méttee méttee. muy commencé gis nga bejjaaw commencé màgget parce que dafa am lu doon dund lu neex ci santage doon dundé té Macky Sall dafay séddee santage Macky Sall. journaliste yi ànd ak moom yëpp doon ko jàppale di ko saagaal nit ñi. Hmm. rawatina ak Ousmane ñooñu ñëpp début bi moom lañ doon njëkk a saaga. ponkal journaliste yooyu yëpp te Yérim Seck bokk ci mais ñooñu dañ doon attaqué Macky Sall ci début bi ba Macky Sall séddee xam nga Macky Sall bëggul ko ko contre tey ji boo ko jëlee Yérim Seck jël Souleymane Jules Diop Madiambal Diagne Yoro ja Mout Ban Modou Thiam ñooñu ñëpp ñàkkul ne am na ku ma fàtt ci mais Latif Coulibaly sax mën nañu wax dafa àndoon ak Macky Sall parce que dafa nekkoon candidat après candidature am mu dem dugg ci benn sigil Sénégal mais début da ko daan attaqué waaw si non kooku moom début bi ñëpp la doon attaqué bi muy attaqué euh, kii nii Ablaye Wade mm. def contre et mécontre de de de l'annonce yi ak un opposant au pouvoir mm. l'alternance piège loolu yëpp dafa bëggoon Ablaye Wade oo ko pour ci gouvernement mm. léegi nag bi Macky Sall ñëwee ñoom ñëpp la jël dugal leen pour ñu noppi Tunkara il n'est pas journaliste mais Tounkara homme de média la heure bu xëyaan Macky Sall lay attaqué. Hmm. Macky Sall oo ko mu bàyyi attaque Macky Sall. Hmm. léegi lan doon def Macky Sall gis na dëgg jomaay bi mu ngi ko bëggoon def. Hmm. mais xam nañ ne du jàll léegi ñooñu ñëpp tey dañuy def benn bloc ne dañuy xeex nguur gi te xeexeewuñ nguur gi pour intérêt sénégalais yi mais pour leur propre intérêt parce que li ñu doon am ci Macky Sall dañoo bëgg amaat loolu ci ñii te ñoom en âme et conscience xam nañ ne ñii duñ mës a nangu lool. duñ mës a cédé la pression moo tax nag duñ leen bàyyi ñu ne ñoom dañuy rendre le pays ingouvernable manuñ ko motax il faut ñu anéantir leen. Hmm. Cheikh yaram dafa négocier libération doom ji. dafa ligg mom hmm. moom sax heure bi kaso la ko waroon mais Ousmane su condamné ci viol. Ousmane dans un pays normal mais hmm. viol c'est un crime. c'est un crime buñ la ci condamné normalement. war nga mëna a ak yàq biir aussi war nga mëna teud tëdd ben au moins 5 ans sax. parce que jiinoon nañ ko yàq biir. Yérim sék xoola dañ ko condamné ci viol. doomam ñëw récidivé ko mom waaw violé. mu dem négocier. ba pare mu doon jox benn jigéen mu doon yàq biir mm, ñett ñett crime yooyu yëpp mm. tegu ci ndoddam donte benn bi doomam la mm. mais moom moo dem négocier pour Macky sàll génnee doomam parce que Macky Sall moom yéen xam ngeen ay mbiram kenn du ko waxal Macky Sall boo rendee doomi aadama sax tër nit rendi ko sax Macky mën na la génnee ci ci kaso moom noonu la mel léegi nag bi mu négocier loolu après dafa dem di xex Ousmane Sonko parce que Macky Sall benn problème la amone mooy Ousmane Sonko kuy ñëw di sosal Ousmane Sonko bind na fi livre hmm. jël histoire bi traverser ko voilà jiñ ko Sonko ne Sonko te bobu Sonko commencé gul sax commencé gul woon sax loolu c'était en 2012 te Pastef ñu ko hmm. créé en 2014 légui kiko kim don mu doon defal sale boulot bi kooku la hmm. jigéen bi ñun xam nañ ko Gambien boobu noonu turam muy commencé F donc Yérim sek

waxul ci waxu justice de daf ne dinañ jël suñu responsabilité ko ko ci def tu vas hmm. courir à Rebeuss hmm. lolu waxu nit la ko xam da fay mettre en garde ay nit yo xam ne ay yàqkat lañ mais exécutif Ousmane mën naa tëj hmm. judiciaire moom day àtte condamné mais exécutif mën naa tëj parce que procureur fan la bokku te parquet ministère de la justice <laughs> moko jité ministre de la justice premier ministre moy patron yam

Euh, dañoo dangereux. Hmm. bu Ousmane Sonko di wax dañuy déglu ay waxu Ousmane Sonko pour jëm ko mettre en mal ak. population bi ah, te mënuñu si te loolu def nañ ko bi Ousmane Sonko nekkee dans l' opposition ba sonn te mënuñu ci dara te ba léegi. Hmm. ñoom bàyyeeguñ loolu ba léegi ñu ngi ci gëm nañ ne war nañ ci mën a réussir malgré Ousmane Sonko rëcc na ba falu ci. Hmm. xam nga affaire Kandé bi yaa ngi gis Yérim li mu ci wax nee na mu ngi toog. di wax ay loo xam ne secret militaire la mais loolu lan moo ko def secret militaire xam nga Ousmane Sonko fu mu uteeg ñoom ñoom dañuy jël ay mbir yoo xam ne dafa concerné sénégale yi ñu koy nëbb Ousmane Sonko da koy wax sénégalais yi ba ñu dégg ko mm, mm. suñuy wax secret militaire jëmul ci benn militaire boo xam ne dañ kaa ngemb pour mu ñëw def ñaawteef ci biir dëkk bi mm. mais secret militaire xam nga mooy lan mooy ñun suñu ay côté armement ak suñu côté défense ñu bañ ko siiwal ba ay dëkk yu ñu dendal nga xam ne mën nañoo xëy ñoo ñu hmm. di ko yëg. mais li nga xam ne intérieur la su hmm. suñu suñu biir la sécurité national la. Hmm. mais kooku dañ ko war a wax yi yëgal leen ko wan leen na leen am na rapport bu ñu fekk foofu. mais waa ji dafa am lu mu doon nar. te waaj ji fu mu jaar ak Macky Sall. ak Macky Sall wax ji mu fi waxoon yaa ngi fàttali ko Macky Sall waxoon na fi ne. suñu jubóowul ñun pour politique am na ay force yoo xam ne force organisée lañ. mën nañoo ñëw jël nguur gi. te waajooju Macky Sall dafa jox ñaari.

Macky Sall da ko joxoon armée de terre. Hmm. ba pare jox ko force spéciale. Hmm. mais naka ngay jëlee benn nit jox ko armée de terre jox ko force spéciale. Hmm. te am ñoo xamante ni ñoo gën a grade ñu nekkoon dans l'armée. armée. ñu parachuté ko. daf ko général te boobu ñu ko jiitu woon foofu ñu ñu nekkoon ay supérieur am ña nga fa. Birame Diop bii nii.

Hmm. dugal leen biir police ñuy ray nit ñi di torturer nit ñi. Hmm. mais dëkk bi dem na bay guerre civile mais dëkk boobu yow ki ñu doon pour mu jël réew mi kooku bu toogee du jël ay matukaayam. Hmm. xam ne bi mu toog neexul malgré peuple bi ñoo pression mujj gi conseil constitutionnel bi nga lañ ba éliminer Ousmane Sonko. am nañ conscience ne léegi ñun fu nekk nii dañuy euh, ànd askan wi parce que nañ ay corruption. pour une élection askan nous nañ dem élection ñu xam askan nous rek ñoo a élection ñu ñuy fal Pastef Ousmane Sonko lañ y a fal ñu xex ko Ousmane Sonko joxoñ na ba paré té xam nañ il va gagner légui nak hmm. yow ko xam yow da désert lu nekk pour accéder au pouvoir. Hmm. mu am ay euh, xam bëgguñ Sénégal tabiss ay loxo. Hmm. France. mais kooku boo faloo yow doo jël sa ay matuwaay. léegi ñu ne loolu waru kaa wax mais loolu daf ko war a wax. pour sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo àndoon ak moom di xeex. xam ne kat kii pare na pour aar réew mi pour sécuriser réew mi parce que ñoom lañ dénk réew mi pour ñu euh, sàmm réew mi. ok ah, Abdallah léegi dañuy basculer si biir campagne bi. amoon na solo trop pour def loolu mise mise au point la woon rek mais léegi. Euh, gis nañ mobilisation bi doy waar bi Pastef di def biñ ko commencé ba léegi ak organisation bu am solo bu Ousmane Sonko def tête de liste mais léegi man benn appel ak laay def mooy ne que li wolof di wax ba borom càq du xeex ak borom baati neen je fais un appel ak pas pas waa Pastef quoi Pastefien la bon voilà nañu bàyyi di séddee ay provocation te képp kuy yor micro moo xam Dakar nga nekk moo xam Saint-Louis nekk si cortège yu Pastef bul wax lu lay xeebee

donc Ousmane Sonko sénégalais yi ñoo ko bëgg. Mhm. loolu il faut nit ñi nangu ko accepté ko gis nga yàlla dafa wax ne. zalika fadlullah yuti man yasha wallahu zul fadlul azim mhm. ngëneel ci yàlla moo koy jox ku ko neex Ousmane Sonko yàlla moo ko tànn yëkkati ko sénégalais yi jël jël ko dugal ko ci seen xol. Mhm. ba pare Ousmane Sonko campagne bi. dafa uute ak campagne ñeneen ñi xam nga mënoon drainer foule rek di def show mm, mm. mais campagne bi c'est une campagne très organisée oui bien sûr région bu mu dem mm. day dal ci capitale ba ba pare def tournée ci biir région bi def fa ñaari fan def benn meeting ci capitale ba gars yi jox kay doléance bu ñu ko joxee doléance dina leen ci tontu mais dafa am programme mooy référentiel 2050. mille cinquante bi daf koy décortiquer xam nga dafa am ay pôles régionaux région bu mu nekk potentialité yi nga xam ne am nañ ko su ñëwee daf koy expliquer ba pare nag na leen nit rek laa su ma juumee rek wax leen ma su ngeen amee lu ngeen may suggéré tamit hmm. suggéré leen ma ko te day teg chaise toog jàkkaaroog askan wi wax ak ñoom hmm. donc loolu c'est très important xam nga ute na ak ñi nga xam ne ñoom c'est des haineux hmm. ay ñoom Barthélemy Diaz ak ñi mu àndal ñooñu du Sénégal moo leen tax a jóg ñooñu benn nit lañu amal problème mooy comme lu dal ñoom Yérim Seck rek mooy Ousmane Sonko jalousie moo leen jàpp dañoo aigri dañ doon xeex Ousmane Sonko japp ne Ousmane Sonko il est mort politiquement. Hmm. te Ousmane Sonko teranga rek la seex ak ñom ñu war ko ba paré diko ko bëgg bëgg ko yàq. Hmm. yalla nangul légui lool mo leen merloo. Hmm. Barthélemy Diaz yow da nga gis mu proposé le benn programme mok ñum andal àndal. non seen programme moy mooy Sonko 24 la ñom loolu la ñuy wax. wa lool dañ koy def. pour ah, parce que amuñ luñ wax. amuñ luñ wax xam nga nit ki bo démé ba méré ko ba amoto dara loo koy wax da koy saga pour. parce que da nga sa xol mo jeex parce que amoo argument xam nga injure c'est l'arme des faibles quoi xam nga contradiction bi sax tax sénégalais yi a hmm. incohérence imaginez Ousmane y a de cela 7 mois ci gannaaw Barthélémy Diaz Bougane Gueye Thierno Pape Djibril Fall ak hmm. lan lañ doon wax dañ doon Macky Sall na Macky Sall baaxul ah. dañ Macky Sall 12 ans <laughs> ne Macky waa léegi Macky moomu bon ñu jëlee ko fi y a de mois Macky boobu yow nga wax ne da ngay dem def ak moom intercoalition pour mu ñëwaat am majorité assemblée nationale hmm. waa léegi xanaa kon Macky Sall su àndee waa sàmm sa kàddu ñoom Barthélémy Dias ba am euh, euh, majorité assemblée nationale yàlla tere

waa APR ñoom dañuy nangu. <laughs> pour ñu yóbbu leen dem votel seen bopp <laughs> ne ñoom ñooy ñooy ubbil seen bopp haute cour de justice pour ñoom ñu àtte leen ñoom ci ñaawtee bi ñu fi def. tëj leen <laughs> ak ñu abrogé tamit loi d'amnistie ñoom ñoo koy def ñoom ñoo ko voté woon pour sauver Macky Sall ak ñi mu àndal. Mm. mais xam nga loolu Ousmane. Mm. loolu mën te weesu incohérence beneen incohérence bi. Mm. mooy ñoom ñu ànd ci seen biir tuddee seen bopp sàmm sa kàddu. dañ naan xeex. ñoom ñoo sammul seen bopp ñoo sàmmul seen kàddu ñoom. Barthélemy Diaz nekk fi woon di xeex ak Bougane Gueye di hmm. di saaganteeg moom nday ci affaire yu panneau publicitaire bi mu nekkee maire Sacré-Cœur ak maire Mousse ah. ku nekk di saaga sa morom di yàq sa morom lu mel ni xamee hmm. Pape Djibril Fall Bougane bi mu ñëwee woon euh, jàkkaarloo foofu la nekk di dammati Bougane naan ko yow da ngay exploité euh, jeune journaliste yi hmm. da leen di stage ay at doo leen defal contrat Thierno Bocoum moo doon wax ne moom

saaga moo tax Macky Sall jëlee ko États-Unis indi ko Sénégal. Hmm. mais Anta Babacar Ngom saaga na. nii la ah, def Sénégal Sénégal yëpp la saaga ndey. Bougane Gueye hmm. Dany saaga na. Hmm. ay yoon. nit ñi dégg ko. kon léegi kenn bëgg mu doon wax ne du ànd ak ay saagakat moom ànd na ak ay saagakat. ah Bougane Gueye Dany mi waxoon ne Khalifa Sall dafa trahir tout une génération. Hmm. ànd naag des Khalifa Sall. ont ah. début bi Khalifa Sall. Ah, incohérence totale donc. Hmm. incohérence Donc, l'incohérence casse casse Sénégalais am hmm. parce que les Sénégalais Sall pendant des années. depuis 2021 à 2024 ay nit plus de 80 personnes mu emprisonné des milliers de personnes de dëkk bi ah xañ ay ont été ak ak Ousmane Sonko mu candidat ba été ñu ko fi. 7 mois après mu ñëwaat ne day laajaat suñu ay baat pour am majorité assemblée nationale ba pare ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak Ousmane Sonko di ko xeex démb ba pare nee nañ Ousmane Sonko moo bon tey. Hmm. Macky Sall mi bonoon démb moo baax tey bañ ànd ak moom. waaw am na solo as Abdallah. waaw mais xam nga ñun moom suñu waxtaan waaye mais léegi daal bala ñuy kii je pense que dañuy lancer benn appel. mais pat patriotes yi le 17 amul sama tànk day metti ah. amul gagné nañu ba noppi. amul ay dafa xii nag ay léegi mu taw ak yooyu na ñëpp dem voté ji parce que daf fi am ay yeneen dëkk ay ku ñëpp fogoon ni yow gañe nga ba pare ba say partisan ñiy tëdd di nelaw ak ñii di kii fa mu am gan di surprise fii gaa surprise du fi am mais pour bañ leen may sax ñaari député sax na ñëpp jug dem voté ku nar a voilà ku nar a jël gaal jëlal gaal dem voté ji ku nar a dox doxal nga dem moo xam day taw dafa taaw ak génn leen ngeen voté ñu jëleegul seen carte dem leen ngeen jëli sen carte voilà Hadj Abdallah loy tëjee. wa man dal Ousmane li may tëjee mooy am naa ci Sénégalais mais yag yàgg hmm. euh bëgg gis Ousmane Sonko. Hmm. ci bulletin parce que lolu yag na. Hmm. élection nationale Ousmane Sonko gëj na bok depuis 2019, mille élection présidentielle. Ah, mais bu ci top élection locale la won candidat la won maire euh bu ci top, moy législative 2022 mille yi Macky Sall xeex ko. moy liste nationale ba na du fi nekkee. candidat hmm. parce que xamoon na ne bu bu jàlloon dañuy am majorité am Ousmane Sonko nekk président assemblée nationale su booba hmm. dossier judiciaire yi caaxaan yi ñu ko créé loon ba dëkk bi tàkk ku doon du ko mën a def hmm. léegi nag 2024 xeexaat na ko nekk doo nekk candidat ci élection présidentielle sénégalais yi nag namm nañ Ousmane Sonko ci bulletin te gis Ousmane Sonko ci bulletin loolu moom mag Sall loolu doon bañ a gis parce que lolu baxul ci mom li tax wa yeewi askan wi dem daf balotage assemblée nationale ak Macky Ousmane Sonko motax parce que ay euh, suppléants ñoo demone mu campagnal leen deug la gagné mm. loolu ci barké Ousmane Sonko lutax maire yi bari won si yeewi askan wi Ousmane Sonko la mm. li tax président Bassir Diomaye Faye nek président ñëpp xam nañ ko mm. wa ki nga xam da fay fal ay maire fal ay député ba fal président kooku bés bu ñu gisee photoom mu nekk tête de liste hmm. ci élection gis photo ci bulletin bi hmm. kon xam nañ ne pourcentage yi amoon hmm. dina ëpp man dama dama am yaakaar ne dinañ fi am boo moytuwul quatre-vingt pour cent taux de participation bi tamit dina élevé wu parce que nit ñi ñoo bëgg Ousmane Sonko am yéene pour voter Ousmane Sonko ñu leen ko doon xañ te am nañ occasion ci élection législative yi parce que Ousmane Sonko instant bi

ñu mën a liggéey Sénégal. teg ko ci yoon muy yoonu développement. salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf